marché maintenant a grandi, grossi, a pris du volume et a pénétré notre quartier. Des maladies qui jadis avaient été éradiquées, telles que la tuberculose, telles que les maladies de peau, la galle telles que les maladies respiratoires, telles que l'asthme, telles que d'autres, la, la, la fièvre typhoïde. Tout est en train d'envahir notre marché par suite de la pollution, par suite de, de l'insalubrité, par suite du manque d'hygiène. par suite du, du scandale écologique et environnemental que cause le marché de Sam. Ce marché nous a été imposé par la municipalité. Pendant trop longtemps, les populations souffrent et n'ont rien dit. L'année dernière, on a organisé une marche. La marche est demeurée sans suite parce que nous n'avons pas fait suite à nos actions. Aujourd'hui, les populations de Diakhao ne toléreront plus rien du tout. Les populations déjà en ont marre, ils sont, elles sont excédées et notre action sera continuée sous les formes diverses et multiples, sous d'autres, jusqu'à satisfaction totale, c'est-à-dire la délocalisation du marché de Sam. Ce marché cause beaucoup de nuisances. Ce marché cause beaucoup de nuisances, des nuisances même au niveau des commerçants, l'insalubrité qu'il y a à l'intérieur du marché, euh, les vers de terre, l'insalubrité, l'insécurité. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de, il n'y a pas de toilette. Les gens font à même le sol. Les gens font à même le sol leurs besoins. Près des, des, des étalages. Même les gens qui viennent ici chercher leurs provisions dans le marché ne sont pas dans, dans, la sécurité, dans une sécurité. Tout le monde a des problèmes. Nous demandons à la municipalité de cesser le dilatoire, de prendre des mesures idoines pour que le marché soit définitivement délocalisé. Les populations de n'attendront plus rien et ils poursuivront leurs actions, quoi qu'il arrive. ay musiba yu nar a dal waa jaxaaw te du yem rek ci xam ngeen ni tuberculose bu sañjee dana yàq population jaxaaw dana yàq population dixième dana yàq population yi nga xam ne c'est des populations les quartiers riverains lii nag jaxaaw nag war naa taxaw association et initiative locale le maire vous salue à avec derrière, lui les populations de Djaha. Notre marche est motivée par la colère impétueuse des populations de Djahaou qui ne peuvent plus supporter les agressions et les nuisances causées par le marché de Djahaou. Ce marché qui, à l'origine, devait être un marché provisoire qui devait euh, être là-bas pendant six mois de devenir un marché permanent avec ses agressions, ses nuisances, les difficultés qu'il entraîne, au niveau de la santé et de l'environnement des populations de Dakar. Nous disons que ça suffit dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy sont diligentes ci mbiru saam dogal na waxoon naa ko fi daaw devant vos responsables tey jii laa koy répété j'avais demandé à ce que l'État du Sénégal puisse nous appuyer, nous accompagner en prenant la charge de la construction d'un nouveau marché aux poissons à Thiès. Depuis lors, aucune suite n'a été donné à cette requête de la mairie de Thiès au nom des populations de Diakhao. J'ai ici avec moi les deux courriers que j'ai envoyés au ministre de la Pêche et au ministre du Commerce, lui demandant de prendre en charge donc la construction d'un marché aux poissons à Thiès. Jusqu'à présent, aucune suite, aucune suite, je bien, n'a été réservée à cette correspondance qui est datée du 22 octobre après l'incendie du marché central. C'est pour dire tout simplement que toutes les démarches administratives ont, ont, été faites auprès des autorités étatiques pour que Thiès puisse disposer, comme les autres villes, d'un marché aux poissons digne de ce nom. Néanmoins, la mairie prend l'engagement, prend l'engagement devant vous, à défaut d'une intervention de l'État, à défaut, je dis bien, d'un manque de réactivité de l'État, nous nous engageons à trouver les moyens de construire un nouveau marché aux poissons à Thiès. nous avons déjà un terrain, un site vers Kermodou Ndiaye qui est aujourd'hui capable d'abriter un nouveau marché. Je suis prêt à faire un prêt, un prêt de 500 millions pour construire un nouveau marché, si l'État ne réagit pas. Mais pour cela, je dis bien, pour cela, il faut que les marieurs, les commerçants s'engagent à ce que ce prêt-là soit remboursé au moindre centime. Je ne peux pas prendre la responsabilité d'emprunter 500 millions, de faire un nouveau marché, alors que les commerçants ne payent pas les impôts et les taxes. Ça également, c'est une question de responsabilité et qu'il faudrait que nous en discutions jusqu'à trouver un compromis. C'est pour dire tout simplement les dispositions dans lesquelles la mairie se trouve pour aujourd'hui trouver une solution définitive à ce problème de SAM. En attendant, de manière provisoire, de manière provisoire, comme j'ai procédé avec les ambulants, je vais concerter, me concerter, solliciter l'accompagnement des communes d'arrondissement pour qu'on puisse éclater le marché SAM. Si les maires d'arrondissement acceptent, moi je, peux, je suis prêt à, à, à fermer le SAM, à, à, distribuer, partager un peu tous les marailleurs du marché SAM dans les six marchés de communes d'arrondissement et à trouver un site provisoire pour les camions pour que définitivement Sam puisse être éradiqué à Diakhao. Ça, ce sont des dispositions pratiques que je peux prendre de concert, je dis bien, avec les communes d'arrondissement. Je demanderai au comité d'initiative de prendre contact également avec les autres collègues maires des trois communes d'arrondissement et que nous puissions en définitive trouver une réunion de concertation et de partage pour que ce problème-là puisse être réglé définitivement de manière concertée. En tout cas, je pense qu'une solution provisoire peut être trouvée si un, une discussion, un compromis est trouvé entre les maires d'arrondissement et les maires de la ville et les marailleurs qui sont les principaux acteurs. Je pense que l'engagement que je peux prendre ici et au besoin, comme je l'ai dit, faire un prêt pour construire un marché si l'État ne réagit pas. Ça fait depuis plus d'un an que nous sollicitons l'État, ils n'ont pas encore réagi. S'ils ne réagissent pas, je suis prêt à faire ce prêt-là, mais à condition que ça soit bien encadré. Je vous l'ai dit et je le répète. L'autre aspect, l'année dernière, vous étiez venu avec 10 points. Aujourd'hui, je vois 5 points. Cela veut dire qu'au moins, il y a 5 points qui ont été évacués. Sur les 5 d'aujourd'hui également, je vois deux presque qui sont presque réalisés. Il reste un seul point principal, c'est SAM. Et de manière concertée, nous trouverons une solution à ce problème-là. En tout cas, moi, c'est l'espoir que je nourris que l'année prochaine, si vous reviendrez ici, vous verrez que le marché SAM sera définitivement délocalisé, sera définitivement réglé et que vous reviendrez ici pour nous adresser des félicitations et des encouragements, mais pas pour revenir ici poser des problèmes de SAM. Moi, c'est la conviction Donc pour la marche que vous avez effectuée aujourd'hui, je vous encourage et vous remercie et vous félicite pour l'esprit citoyen avec lequel vous organisez annuellement vos marches. Et je vous remercie, encourage également les dirigeants. Non, Mais écoutez, écoutez, écoutez, Bagn Am, c'est ça la solution. Donc moi, je pense on a trouvé un compromis. On a trouvé un compromis. Donc, les responsables reviendront ici pour qu'on puisse, donc comme j'ai dit, voir les modalités d'organisation donc de ces compromis-là et de mise en œuvre pour que définitivement ce problème soit réglé. En tout je remercie tout le monde. Donc je félicite tout le monde et je dis à très bientôt. waa ci wolof li ma bëggoon a wax li ma bëggoon a wax li ma bëggoon wax xam ngay vous les jeunes vous les jeunes da ngeen dul déglu moo tax no da ngeen dul déglu xam nga lu tax yéen ñi ma gis ñëpp ngeen naan ñoo bañ ay ndaw ngeen mais ay responsable ngeen war a nag ndax paa yi li ñu waroon def yëpp def nañ ko yéen a war a jël le relais le le yéen a ko war a jël da ngeen di déglu ba pare soog a wax ndax lima ma wax li ma wax kenn mënu ci dindi dara démb dama ni dix ngeen ma indi indiloon at bi passé tey fukki juróomi point ngeen indi cela veut dire que juróom yi réglé nañ ko diggante daaw ak ren beneen bi mooy pour délocaliser marché Sam li ci maire bi def yëpp xam ngeen ko daaw amoon nañu xaalis six cent soixante-dix millions yàlla dogal fi ñu waroon a tabax saam problème am ci ba xaalis bi ñu defaat ko ci tëli yi dama ni mën nañu trouver benn problème benn solution provisoire solution provisoire bi nañ koy trouver mooy avec les maires d'arrondissement ñu waxtaan ak ñoom comme ni ñu trouver problème ambulant yi suñu demee ñu xool nan la ñuy def ba mareyeur bu ne commune d'arrondissement bi nga xam ne fa ngay di fa jaay ñu yóbbu la fa ñoom ñu commencé fa liggéey camions yi mën naa trouver un site boo xam ne ñoom laa fa yóbbu dafa leen benn aire de stationnement pour les camions yi nga xam ne ñooy indi jën yi à Sam su loolu amee ñu daal di tëj Sam définitivement man loolu laa proposé amul lu ngeen di bañ amul lu ngeen di nag ndax sax c'est la formule la meilleure formule loolu la pour le moment beneen bi ci des tabax marché bu bees wax naa xaalis bu bëri la laaj banque mondiale aaloon nañ 670 millions malheureusement amuñu woon site bu ñu tabaxee ba xaalis ba jël nañ ko defaat ko ci tëli yi maintenant pare nañu pour demaat xool avec ay banque pour leb leen juróomi téeméeri million pour tabax marché bu bees loolu su ma koy def defaluma ko waa Jaxaaw waa cees lañ koy defaral mais yéen yéen ci njëkk a bénéficier wu ndax dina fekk ñu daal di toxal sàmm pare donc man loolu laa leen di proposer demander également au comité. mu jël contact ak les maires d' waxtaan ak ñoom ci processus bi nga xam ne bëgg naa ko enclencher pour ñu daal di déplacer Sam ci commune d' arrondissement yi. am nañ juróom-benn marché am nañu juróom-benn marché yoo xam ne mën nañ fa yóbbu suñu éclaté mareyeurs yi yóbbu leen ci marché yooyu ndax ñiy ñëw Thiès jóge Thiès di jënd si jën ci Sam ci commune d' arrondissement yi la ñuy jóge kon tey su jigéen ñi amee ñu jégale leen jën yi jégale leen marché yi. dinañ bi dugg ci seen koñ yi te duñ mañ a egg saam kon defe naa ni solution boobu moo mën a dimbali pour le moment jaxaaw pour ñu délocaliser la marché li ci des nag ñu daal di ñaan jàppalante dem wuti xaalis tawa marché bu bees pour waa Thiès ndax état bi depuis at ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale ñu ci marché te réagiruñu en tout cas loolu laa leen doon wax donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah lu leen jaaxal rek mën ngeen ñu donc yenn bi tamit suñu paree tamit dañ leen am nañu